asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar a ngi si jàmm dama dugg sànq ci YouTube bi gis ngeen di wax si affaire maîtresse d'un homme marié man xaaral ma participer ci parce que man maîtresse d'un homme marié gisuma ci lu bon gisuma ci lu aay ndax gis nga Lalla macha allah ni muy sëyee waa jigéen bu nekk war ngaa sëyee noonu gis ngeen Marème ni muy def xale jigéen ñi kenn ñëpp bëgg a sëy fii ku fi doon ñaare wala ko doon fi ñetteel rek noom nga jëkkëru jàmbur kenn jékki-jékki wu fi sëy kattanoo boo jëkkëru jàmbur waaw. loolu moo fi am jalika di muy sëy macha allah jéeg ji noonu la ñuy ñu baax ñi noonu la ñuy sëyee kon nañ bàyyi maîtresse no maye mu daw loo xamante ne la ñuy jàngal bu ñu fi jàngal yi fu tubaab ndax ñun ñi chaque jour ñu jàpp suñuy novela kat di ko seetaan moo ñu safta loolu lañ yaa ngi fi kat boo fi bëggee jàng bu ñu fi bëggee jàng ay fu tubaab ñu jàpp suñu novela seetaan ko ndax chaque ñu seetaan novela nañ ñu bàyyi pour émission yi lañ defal marisu sinisi yu muy sol baax naan baax loolu dara nekku ci dañuy jàngale li xew ci sa dëkk xew ci sa réew ni ngay def ba téye sa jëkkër loolu ngay jàngale mu saf nit loo xamante ne kat safuñu ay yëfu enn ak yëfu tubaab chaque ñu jàpp ay Nollywood ak Bollywood di ko seetaan waaw nañ ñu jàppale rek su suñu novela suñu film yi ñu seetaan comme ñu am suñu jàmm am suñu salaam xam na ñuy suñu jëkkër xam na ñuy dundee loolu daal laa amoon lu ma siiwa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp